tey ëttu yéenekaay yu bëri ñi ngi xëyee scandale bi am ca ONAS ak conseil interministériel bi ñeel wàllu infrastructure portuaire ubbil journal bii di réew mi quotidien nee na guerre bi am si diggante ñaari cheikh yi ñu soogay tàmmale waaye nag boobu moytul ca justice lay jeexee journal bi ne am na aku plainte bu nga xamante nag déposé nañ ko contre docteur Cheikh Dieng mi nga xamante nag moo jiite woon kër googu lee di ONAS ñu ngi koy toppee foo et usage ci marché ONAS yooyu le ca jamono jooj nag le quotidien yéenekaay ni nguur gi ma ngay féey journal bi ne Cheikh Tidiane Dieye mi nga xamante ne nag moom loon gàll ay tuma ci ndoddan moom fa mu newoon ba léegi foofee taxaw li mu def daal mooy yónni ay service ngir ñu leeral ONAS moom porté na plainte docteur Cheikh Dieng mi nga xamante ne nag moo yoroon kër goole di ONAS Birahim Seck di njiitu forum civil nee na conférence de presse u ministre Cheikh Tidiane Dieye moom leeralul dara gindiwul kenn tojul fenn it Thierno Alassane Sall bu République des valeurs moom nag nee na mu leer journal bi démb sori na loolu ak tontu bi nga xamante ni nag mooy bi ñu bëgg ministère bi li mu xamle moo di am na ay écart ci wàll facturation ba noppi am na benn appel d'offre bu nga xamante ni nag dañ ko daal di soppi Ibrahim Seck di njiitu forum civil nee na ministre bii di Cheikh Tidiane Dièye yeyul kenn ci conférence de presse bi nga xamante ni nag moom la doon def démb fépp taw féex nee na Cheikh Tidiane Dièye moom am na nag lu muy ragal li ko waral moo di ay fonctionnaire am la envoyé ñu daal di indi ay leeral ci mbir mi nga xamante ni nag moom lañ ko tuumaal Moussa Diakhaté di député ci assemblée nationale ab enquête parlementaire bu nga xamante ne nag dinañ ko ubbi fan yi ngir leeral mbiru ONAS boobu lee ginnaaw synergie des acteurs de l'assainissement de la banlieue ci kàddu yi nga xamante ne nag yëkkati woon nañ ko ñeel wàll woowulee ca jamono nag lu solo yéenekaay del siwaat ak ñun ci conseil interministériel bi nga xamante ne nag moom lañ doon amal bi ñeel wàllu infrastructure portuaire am na ñaar fukki ak juróom-ñetti mesures yi nga xamante ne nag jël nañ ko ngir soqali secteur portuaire boobu bokk na ci yeesalaat doolelaat port minéralier vraquier bu nekk ca Bargny Sendou yokkaat jumtukaayu port autonome bu ndakaaru tamit bokk na ci investissement yi ñu ci xayma toll na ci ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti milliards suñu koppar ca jamono jooj nag Vox Populi ñëwaat ak ñun ci wàllu politique ak Ousmane Sonko di njiitu Pastef bi nga xamante ni moom solaat nay gaawam ngir jàkkaarloo ko opposition bi nar a ak ñoom moom nag mi ngi leen di art bu baax nee na fi mu toll nii nag ku ne ci kanamam boo moytul sa kaw lay jaar nee na noppi nan ñi nga xamante ne ñoo nar a jàmmaarloo ñoom di opposé wu ak ñoom waaye nag ci respect la koy njiitu képp ku yaakaar ni mbubu premier ministre bi mu sol tere naka ngir mu amul yëg-yëngu politique am da ngay nax sa bopp nee na tamit état de grâce bi nga xamante opposition bi moom lañ def seen arme de guerre nee na loolee waxu bokkat la te ñoom soxlawun état de grâce lépp si waat ak ñun te Ousmane Sonko ni nag ñoom ñoo jor projet bi lay bi nee na ñoom daal ci état de grâce lan ko jàpp rek naan état de grâce fii état de grâce fee te ñoom soxlawun état de grâce ndaxte état de grâce wax waxu boqat la waxu tàppet la neen képp ku am fit rek na nga wàcc ci terrain bi te ku wàcc ci terrain bi nag di nga jàkkaarloog ñoom ñi nga xamante noppi nanu ngir xeex waaye nag teg ka ci yoon les échos yéenekaay yi ni démb Ousmane Sonko mayul dara opposition bi nee na moom noppi na ngir débattar ak ku mënti doon ragalul kenn ci wàllu débat Ousmane Sonko ci ci les échos yéenekaay yi ne naka la opposition bu nga xamante ne nag day yor saak ci loxoom ba noppi bëgg leen a xoqatal nee na loolee mënta nekk nee na ñoom du ñuy yi dañ doon yëkkati ay kàddu dinañ tëj seen làmmiñ dootu ñameti génn ci mbedd mi bay jàkkaaroo askan wi di wax ak ñoom journal bi dellusiwaat ak ñun ci jaas yi nga xamante ni waa CNRA ak jëwriñ bi dénk kàddu gi ak xarala yu yees yi yor nañ ko seen loxo ngir dagg bopp këru tasukaay xibaar yi ci wàll bor bi publication données ak menace gi ñuy menacé yenn télé yeeg rajo yi ak site web yi waaye nag tontu du forox ndax patron de presse yi ñoom ñu ngi woote aku boycott bugaan nag mi ngi tontu jëwriñ bi nga xamante ni nag moom lañ dénk kàddu gi ak xarala yu yees amul deseelu ko dara nee na nag kàddu yu nga xamante ne nag yëkkati na dara amu ci am na ab ancien directeur bu Sud moom nag mi ngi woo nguur gi mu daal di fësal subvention yi nga xamante ne jox nañ këru taskaay xibaar yëpp nee na nag na lépp leer mi ngi avertir tamit ñi nga xamante ni ñooy ay naataangoom ca jamono jooju nag enquête yéen kaay am ak enquête bu nga xamante ni nag def na ko si ñàkk respecté gi nga xamante ni ñàkk nañ ko respecté yenn contrat yi état yi nee na bi bu jollee boo moytul loxo dina dare fu ñu ko foogeewul dakkal gin dakkal nag yenn subvention publicité yi menacer yenn titres de propriété yi l'observateur dellu siwaat ak ñun ci jafe-jafe ndox mu am ca Touba saafara si nga xamante nag njiiti réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye indi naka ca dëkk woowule ba léegi nag génneegul guute gi nga xamante nag askanu Touba ñu ngi koy dund bokk na ci ñàkkum ndox mu sell libération yéeni kaay ñëwaat ak ñun ci mbir Sidi Diop di woykat bi nga xamante nag dañ koo yóbbu ndungu sin démb ginnaaw takk dere teg loxo gin ko tegoon loxo oto bi mu doon dawal te amul permis amul tamit assurance nee na nag oto bi ñu ngi ko immatriculé Gambie ba noppi passe avant bi jeex nag moom moo dugal Sidi Diop nee na nag permis international bi nga xamante ni nag moom la artiste bi yoroon permis boobu dañ koo sàcc loolee lépp nag moom moo dugal Sidi Diop tàggat yaram ak Rewmi Sport préqualification mondiale 2026 sunu gaynde yu jigéen yi ginnaaw Hongrie ñoom it lappaat nañu ñi la di Brésil lapp yu metti journal bi di Rewmi Quotidien dellusiwaat ak ñun ci bilan financier bi nga xamante ni nag moom lañ amaloon ci wàllu CAN beeg mondial bi fédération sénégalaise de football mi ngi corrigé Khady Diène Gaye bi nga xamante ni nag moom lañ dénk ministère des sports ñu jeexel kaak record yéen a kaar